Bienvenue sur Salam Vision. Mesdames et messieurs, bienvenue sur les ondes de votre télévision préférée. Salam Vision. Voici quelques brèves illustrées présentées par Cheikh Oussahou. L'Assemblée nationale euh, euh travaille d'arrache-pied depuis ce matin sur l'affaire Ousmane Sonko qui continue d'effrayer la chronique. Le comité ad hoc de l'Assemblée nationale se réunit en ce moment avec 11 députés pour tenter de statuer sur le cas euh, d'Ousmane Sonko. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Restons toujours dans cette euh, Euh, situation politique. Les jeunes euh, d'Ousmane Sonko ont manifesté hier dans la banlieue de Pikine et Guédiawaye pour demander la lumière que soit faite sur l'affaire Ousmane Sonko. Les jeunes ont également lancé l'appel aux autorités judiciaires de veiller au grain sur cette situation qui préoccupe usman Sonko et ses alliés. Ils sont toujours dans l'actualité nationale, démarrage ce matin à Kédougou, la campagne de sensibilisation et de, et de conscientisation de la fièvre jaune. Vous savez, cette maladie est revenue au Bercail euh, il y a tout juste euh, deux mois. Deux personnes ont perdu euh, la vie. Le QSEMS e va débrayer à partir, à partir de demain dans les écoles pour exiger au gouvernement des primes d'indemnité. Sur le plan international, les pays du Sahel se réunissent aujourd'hui à Djamena au Euh, sans la présence du président français euh, Emmanuel Macron au menu des discussions la situation sécuritaire qui persiste au Sahel. Dans une poignée de secondes, c'est la version Wolof. mbokk yi ñu leen di gërëm di sant xam ngeen ni jamono ji assemblée nationale euh, fële ca pencum ndaw réew mi ñuy jamono ji di jëm si mbirum Ousmane Sonko député yi ñuy waxtaan saytu xam ndax lu ñu teggi ngiray euh, kiray Ousmane euh, Sonko. di jëm si mbirum xibaar situation politique ba léegi fii Sénégal ndaw yi ànd usman Sonko fii ci Pikine Guédiawaye démb ñu wane seen naqar ñu ñoom dañu bëggoon lu leer euh, jëmale ko seen leader di Ousmane Sonko ginnaaw bu ñu ko tegee ay daan si kanamu justice Ousmane Sonko nag nekk na ko xam ni bari na ñoom ñoo xam ni ñëpp ñu koy manifester un peu partout fële ca bitim réew. li jëm si mbirum euh, xibaar li jëm si CUSEMS mooy euh, euh, kuréel bi yëngu si mbirum daara yi diggu doom yi ñoom ñi ngi fas yéene banque seen loxo talaata ak alarba di njaan di laaj ay ndàmpaay yoo xam ni xam mooy gouvernement bi dañu ko amal ay prime jëmale ko si mbirum njàngale moomu. campagne mooy fièvre jaune mooy pays feer ba nga xam nag dafa ñëwaat Sénégal amoon na ñaari doomu aadama yoo xam ne fi ñàkk seen bakkan fanweeri fa yëpp la ca Kidira ak Touba campagne la ñu koy tàmbalee ëllëg ci ca Kédougou ak Tambacounda bitim réew lañ koy tëjee ci ca naa Tchad benn euh, ndaje bu am solo li naan les pays du G du G5 Sahel euh, président France dafa teew ki xam mooy Emmanuel Macron yéen président yéen président bu Mali président bu Tchad bu Niger ak bu Burkina Faso lépp lu ñuy waxtaanee jëmale ko si mbirum euh, sécurité dans le Sahel yoon ay tink si xibaar si ci Kocc Barma mbokk yi jaa ngeen jëf présentation Cheikhou saho leen gërëm leen sant ànd ak les programmes de Salam Vision jàmm ak jàmm